muhammadin alfaatixi alxaatim walhaadi ila siraati illahi almustaqim wa ala aalihi wa asxaabihi wa taabiciina lahum bilcamali alsaalix ila yowmi ddin wa radia allahu an alqutbi almaktum walbarzaxi almaxtum sayidi ahmad bna muhammad bna salim tijaani wa an saairi xulafaaihi alayhim ajmain mbokku jullit yi nuy déglu mbokk yu tedd yi ci biir réew mi ak biti réew mi ñu ngi ñëw tey gannaaw nuyoo ak ziyaar nuyoo ak ziyaara bu nu jële ci sunuy kilifa njabootu seydil xaaj malik ka ca jiitu ca ñoom di seydil aboubacar si mouhamadul mansour xalif général de Tidiane xam ngeen ni bis boobu ki nga xamante ni moom lañu cay jiital mooy sunu sëriñ ñun ñépp sunu kilifa sunu baay cerno Mouhamadul Bachir Taal njabootu Cheikh Al Hadj Omar Al Fouti yi moo leen tënk cerno Madani cerno euh, Bachir moom la sëriñ bi daan jiital ndax moom mooy ki nga xamante ni mooy sunu sëriñ tey lu nuy wut ci ëttu cheikh ci baay ci maamam ju tedd ja Seex Alxaaj al Fuuti lañ koy sàkkoo ci moom njabootam tabaarakallah kër Maodo bu dara amee lu ca yàqu kër Cheikhu Umar moo koy defar te moom mooy sagu kër Cheikhu Umar di sagu kër Seydi El Hadj kon ñu ngi koy feeñalal orma tey bég tey ñaan yàlla na ko yàlla gën a dolli wér te may nu taas nu ci barkeem fa tabarakallahu ndax mooy lépp sunu wayjur wa Cheikh Abdoul Aziz daan ko jiital ci léppam ak mbooleem ñi nga xamante ni nag ñoom la tënk ci biir tariqa bi fa tabarakallahu ñu ngi leen di jaajëfal ñëw rekk di fàttali lu ngeen fàttewul ak uh, woo mbooleem kuy déglu kàddu yi ci bis boobu nga xamante ni moom lañu ñu tudde xadaratul jumaati di xadara juma populaire sëriñ Abdul Aziz sunu wayjur sunu sëriñ joxe woon ci ndigal joxoon ko nag sunu mbokk yu tedd yi oustaz Mohammadul Fatah Sarr ànd kook ñi mu ko andal ci abnaa ul xadarati tijaniya mbooloo la boo xamante ni sëriñ Abdul Aziz moo joxe ndigalam ci ñu àndandoo di ay doomi tariqa bi doomi lislaam bi doomi réew mi ànd di wéyal ak saytu lu jëm ci boobee xadara bi nga xamante ni moom la ñuy def ca géejawaay géejawaay ca stade Amadou bari lu tax stade ba ndax foofa mëna dëkku nit ñi fay rot si ñu di ko defe ca foofa ngir bëgg bis boobu mu nekk bisu tuub bisu jéggal jéggalu sunu boroom ci li nuy def ci ay rëcc-rëcc delluwaat tëbbu ci leeram ak barkeem barke yonent ba sallallahu alayhi wa sunu barke sëriñ delluwaat feddali sunu kóllëre ci ñoom mu di bis boo xamante ni bisu zikrullahi la zikrullahi yàlla ko digle ni mu dégle julli ci alquran digle ko woor ci biir weeru koor niki yeneen jaamu yi mu nekk bis boo xamante ni kon sunu wayjur wa yàlla na ko yàlla dolli leer ak wayjuram yaag magam yu tedd yaag maamam ya ak mbooleem dawe jullit moo daan ñëw di leen fekk si ca stade booba ñu di fa daje xadratul jumaa di fa am mu bokk ci benn ci ponki tariqa bi nga xamante ni ku jël tariqa bi war na la bu jotee nga mën ko te amuloo ngant nga di ko teewe di ko jébbal yàlla subhaanahu wa taala delluwaat sàkku euh, yërmandeem sàkku mbaaxam sàkku leeram ci jataay boo xamante ni wax na ni soo koy def yaa ngi amaale lu toll ni gan gu màgg mu di yonent sallallahu alayhi wa fa nga doore ba fa ngay jeexale mu ngi teewandoo ak yow ndax moo koy nangul boppam loolu nag tabaarakallah di bis boo xamante ni nu jële ko ci sunu ndigalal kilifa sëriñ Babacar si Abdoul Aziz mi taawu sëriñ Abdou ak mbooleem njaboot sëriñ Abdoul Aziz mbooleem banqaas yi xadara malikiya yi nga xamante ni ñoo tënku te nekk ci gannaaw sunu kilifa gi di cheikh seydi aboubacar si mouhamadul mansour xalif général de Tidiane ñu woote ko pour fàttali ko nit ñi niki le premier avril ca stade Amadou bari ca Géejawaay ñu ngi koy woo mbooleem xadara malikiya mboolem xadara tijaniya bi kulliyati tabaarakallahu mbokk yi dem nañu ba sunu mbokk yi nu séqal wëllëre tariqa te muy njabootu cheikh abdullahi ñas cheikh ibrahima ñas sëriñ maahi ma fa ne yal na ko yàlla gën a dolli dëgëral ànd naak ñoom dem nañu ba wër mboolem xadaraat tijaniya yi nekk ci réew mi pour yëgal leen ni na ko sëriñ Abdul Aziz joxe woon bés baa ngay ñëw kilifa yi joxe ci ndigal pour nu fas ku yéenee def na mu ko daan amale te moo di rekk sàkkuwaale ñaanal Sénégal ñaanal sunu njiitu réew ñaanal kilifa yi nga xamante ni ñoo ànd ak moom di wut ak sàkku lu jëm ci wàllu mbaaxu réew mi rawatina nag sunuy kilifa diine yi nga xamante ni ñooy sunu alal jiital ca sunu maam ja ca tuuba Serigne Touba ak mboolem njabootam tey ka fa nekk di xalifaam te saytu léppam di Serigne Muntaqa ak mbooleem ñamu ko seqal fa tabaarakallahu boo demee kër moom Cheikh bu Kunta ca Njaasaan ka fa nekk di xalifa moom it ak ñam ko seqal mbooleem euh, waa kër maam limaamu fa tabaarakallahu ci bis boobu nga xamante ni xanaa dañu cay tuddandi ñooña rekk waaye ñoom ñépp ñoo ko moom ndax bisu lislaam bi la bisu zikrullahi la bisu jaamu yàlla la bisu wéetal sa boroom sàkku mbaaxam ñu def ko ci bis boo xamante ni ñu ngi yàkkaar ni bu nu ca jógee dugg ci eh, ramadaan bi nga xamante ni mooy sunu weeru koor ñu wooce kon képp kuy ndaw mbooleem ndawi xadara tijaniya almalikiya alsiddiqiya altiwawuniya mbokki koskaas yi soxna yu tedd yi nga xamante ni ñooy rafetal jataay tabaarakallahu soxna umu kalsuum ak mbooleem xadara tijaniya yi nga xamante ni ñooy liggéey ci wàllu jigéen ci taxawaay bi mu am ci tariqa bi lislaam bi woo ci nag mbooleem ndaw ndaw ndax bis bi sëñ Abdou def ni woon nañ ko séddee ndaw yi mu nekk seen bisu daje seen bisu daje ak seen boroom seen bisu delluwaat dénkuwaat ko li nga xamante ni moo leen di dikkal ci ay phénomène te ñu bëgg euh, tabax ëllëg ju dootul màbb mu woo leen ca ndaw yooya ñu ñëw bu nu dikkee yàlla ci yërmandeem xool leen bëtu ñeewantam ba muy xool képp ku toog fii jël sa ci zikri yaakaar naa ni kon ñu ngi delluwaat di ñaan yàlla yàlla may nu fekkeek tal sunu mbokk oustaz Fata Sarr mi nga xamante ni moom la sëriñ bi joxoon ndigal lu ko ci warit fa tabaarakallah mu ngi koy def ñu ñaan mbokki taalibe yi ñëw di ko fekk si ñu jàpp ca jàppale ko ndax mbooloo mu ne toll fu muy daje bu ca kenn àndul ak sago bu ca kenn it àndul ak dal bu ca kenn it àndul ak yiwte boo moyetul mën naa yàq wala mën na caa yàqoo fa tabaarakallah ñu sàkku itam kuy ñëw nga sol lu weex ndax moo nekkoon li nga xamante ni moom la sëriñ bi recommandé woon ak abnaul xadara tijaniya ñu ni kon nag ku ko mën te yàqalu la dara ci bëccëg booba ca takku saanam nga mën a rot si ca stade Amadou Barry ànd kook ñi nga xamante ni ñoom lañu ko séqal ñëpp ci xadaraat yi ci dawaïr yi ci fédération yi ci coordination yi ci mbooleem mouvement associatif yi nga xamante ni dañu bëgg di saytu la ca yàlla te di ko ñaan bëccëgu tàkkusaan boobu nekk occasion nun ñëpp ñu àndandoo ca tàllal sunuy loxo tàllal ko sunu euh, boroom subhaanahu wa taala tàllal ko sunu yàkkaar ñi nga xamante ni ñoom la ñuy yàkkaar ci ëttam te jiital ca yonent bi ak ñi nga xamante ni ñoom la am xulafa ur rachidin jiital ca sunu sëriñ Seydi Cheikh Ahmed Tijani sëtam ba xutboom ba mag mu tedd ma Seydi Ahmed ibn Mohamed ibn Salim Tijani ñu ñaan ñaanal Sénégal yàlla may nu koom bu bu bu bu gën a lew may nu koom bu gën a yaatu defal nu sunu réew développement bi nga xamante ni nun ñëpp moom la sunuy kilifa xëccu pour bàyyee ko réew mi yàlla na ko yàlla def wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh apprendre l'islam et s'imprégner de la spiritualité tijane suivez Asfiyahi TV Leeru Tivaouane sur www.asfiyahi.org application mobile et tablette disponible sur Play Store et Apple Store